lël bu ñu amaloon jam ñaajo ngir waxtaane ni yoon di doxee ci biir réew mi dafa wane néewaayu nit ya cay liggéey ndax juróomi téeméer magistrat ak fanweer rekk ñoo nekk ci réew mi ngir taxawu fukk ak juróom ñett million nit yu fi yeewoo ñett téeméeri avocat ak fanweer ak juróom-ñett ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari greffier mu di ay lim yi néew lool ci réew mi nga xam ne ni bëgg na waxtaane état de droit manquement yooyu di faral di am gàllankoor ni yoon di doxee ak nu ñuy taxawee ma réew yi ci loolee ñu nemmeeku ni ay gox yu mel ni Fatick Kaffrine Kédougou maatam wala sax Sédhiou li fa nekk ci li mu avocat néew na lool loolee nag di salfaañe benn principe bi nga xam ne ni moom la ñu jox bépp ma réew mi nga xam ne ni am na jafe-jafe ak yoon ngir mu mën a défendre boppam loolu yëpp day wone ni ngir tabaxaat yoon ci biir réewum Sénégal faaw rek ñu yokk limu nit yi nga xam ne ni ñoom ñoo cay liggéey sama réew mën a jot nu mu gën a ci justice bu Sénégal rapport bi nga xam ne ni moom moo tukkee ci assise nationale sàkku it ngir ñu gën a ñoŋal ci anam yi nga xam ne ni moom la ñuy liggéeyee waaye tamit mën a jëmmal seen indépendance dooleel magistrat yi wala auxiliaire de justice yi day ajo ngir ñoom it ñu xam lu leen war ci liggéey bi nga xam ne ni ñoo ngi koy amal